sëriñ Maxtaar Touré fajaar leeram nga won ko ay pexe daan na nga yoru joor yanu ko jëm Mbàkke Kajoor Seex Bàmba yónni ko ca buur Seex Ibra topp cay texe ba gis fa Seex Adama Gueye mooy ñaar ñi ma la wax léegi sànni mbilam dal ci ca ngooy mu won ko Bàmba mër mu rëy sëriñ sëriñ bi naan ko foo fexe mu wax ko tegtal ya fa moom Seex ko la ca moom mu xam na gis na ko ko moom mu mbiram daal di joxe mu ne ma wax la bis ba ngir mu wóor nag foofu la lay leeral ñaar fukki fan la ci wéru koor xam nga débat yenn say ma gis mu jóg ci ñaata fan la cheikh ibrahim ñoom mbàkke kajoor wala ñaata fan la jébbalu duma ma ne ñaar fukki fan la ñëw mbàkke kadior waaye ñaar fukki fan la jox boppam serigne touba serigne moussa ka leral na ko ba mu leer ma wax la bis ba ngir mu wóor ñaar fukki fan la ci wéru koor kon mooy ba mu ko joxee boppam di sit di béer la mbir ma wóor cheikh ibrahim yaa rëy pexe